Sa Thiès bu abbi mu dal sama kaw duñ bëri deux minutes na taxaw rek fu ma ko jàpp lamb ji jeex. te eh, lamb bi bu ci amee ndam jàppal am la ko fa su ko dirigé wu du ma dirigé. mais Buzz. mais <laughs> buur ziar naa la dégg naa Touré xawoon naa sangoo mbàjj de. loolu eh, yàqu ci dara yàqu ci dara yàqu ci dara. waaw naan eh, eh, ne ne mos ma mos. tuuti rek il faut nga mos bu il faut nga mos ci Reug Reug Sa parce que buur du ma la ko nëbb. du ah. Ah. naa benn fan ak Reug Reug moom laa ñëkk a gis. Mhm. def naa itam benn fan ak Sa Thiès moom laa. Mhm. mujjee man buur. de trois à mois combat géej na mu umpee nii de trois à mois entre nous ñibbisi naa sama kër mhm. barki démb ci guddi ma taal YouTube bi ma mhm. taal YouTube bi di seetaan rëg-rëg ak Sa Thiès seen ancien combat yi toog ci mhm. deux heures de di ko seetaan mais bi ma paree sama bopp bi dafa gën a ubu <laughs> buur man est-ce que buur xam na ni man làmb yu bëri dama koy seetaan comme ralenti damay ñëw rek am na li ma gis ba pare kii mooy daan yenn saa yi nag ma juuma ah. <coughs> mais buur combat bii dama ci xam affaire yu doy waar yu nekk ci suuf mm-hmm. yi ma yëg yi ma yëg mm-hmm. buur combat bi ump na trop yaakaar naa la ci nag tey pour pour ma xaw a gindeeku tuuti <laughs> jërëjëf bés euh, xanaa di la muy d' abord di la remercier d' abord ci initiative bi nga xam ne keroog euh, def nga ko euh, jëmale ko ci site internet yi wax dëgg yàlla man maa furun jiitu ka ña keroog fausse calcul moo ma dal parce que dama demoon jëli xale yi nga xam ñoom laa yóbboon sur le terrain tribunal ci départ Sonko bi après xaw a ragal daal ne xaar ma daw jëli leen ma leen jëli nag maa ngi leen dabee ci corniche bi mhm. gaa yi ci euh, kiiwu cour euh, kiiwu euh, sonko bi mhm. foofu ci tunnel yi mhm. donc loolu moo ma loolu moo ma xaw a empêché vraiment waaw rendre nañ ma compte sincèrement donc jàppal ni dañ ci ànd rek ba incha allahu yàlla may ñu ci ay pexe ak i solution tey loolu ñun ñoo waroon jël initiative boobu mais donc boo jëlee initiative boobu wan nga nit ñu ko vraiment kat su ma sañoon vous êtes mes frères. Mhm. su ma mhm. sañoon ñu ànd ñun ñëpp liggéey ndax ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm. dëgg te incha allahu danañ ci danañ ci danañ ci ànd ak yow ne vous en moom laa ma ne ko ma ne ko maa ngi koy wax barki démb. bu may seetaan Reug ak Sa Thiès. Mhm. bu ci biir seetaan Reug Reug ak Sa Thiès. pour seetaan dëgg-dëgg ak Sa Thiès il faut nga seetaan ancien combat yi. Mhm. mais boo seetaanee ancien combat yi mais c'est Bour que tu voyais. waay waay Bour boo nekkoon ci terrain bi. kon kon dama leen wax benn affaire. Bour kenn mënu ko génnee ci làmb. Mhm. bu la neexee nga toog dix ans bu ñëw làmb am na ñoo xamante ne du ñu liggéey ci làmb kenn mënu leen génnee ci làmb man. man je suis constant je suis constant. ci samay propos. Bour kenn mënu ko génnee ci làmb parce que ñun ñëpp amateur bu dee benn fan bégal nañu ko. et cetera et d'autres personnes d'autres personnes yu liggéey lu bari ci làmb ba làmb àgg fi mu àgg donc mm. yéen di ngeen toll benn moment boo xamante ne peut-être dina am ay failles wala di ngeen décourager bàyyi mm. mais non dañu war a jàppale gars yi pas pour nous ah buur yow bu ñu téyee ñëpp ci làmb yow mën nga lijjanti sa bopp ba dugg de mais nañ jàppale suñuy jeune frère man maa ngi signé contrat ak tous les promoteurs je touche du bois mm. maa ngi signé contrat ak CNG maa ngi liggéey ñëpp amul làmb duñu may mais itam on doit aider nos jeunes frères on doit les orienter les encadrer ba tey seen liggéey ci làmb yomb buur mais loolu débat après ci biir waxtaan yi incha allah rabi mais buur Reug Reug Sa Thiès xam man dugguma sax mais maa ngi gis dugguma maa ngi gis lébu yi fi mu nii aal waaw waaw xam nga man dama ko wax bës euh, chaque fois mm-hmm. man samay analyse mm-hmm. euh, du neex mm-hmm. parce que su ma pensé laay wax li ma gëm mhm. su ma pensé nag mhm. na jub comme mën na dëgg mhm. parce que nit kese la du dëgg nit tamit aussi comme benn pensée unique te moo tax chaque jour bu ñuy déglu des fois nitu làmb euh, nañu jël far par lool teg fële Beuz quand je parlais de de Balla Gaye Boy Niang quand je parle de l'histoire de Ama Baldé Modou Lô y avait mhm. beaucoup de gens yoo xamante ne que li doon wax neexu leen mhm. ma man je ne cherche pas que li may wax neex leen mhm. damay wax li ma gëm xam nga Reug Reug ak Sa dañuy ñaari mbër yoo xam ni bokkuñu mooy bokkuñu li ñuy bëri te duñu mës a bokk li ñuy bëri Reug Reug est un très grand champion. Reug mhm. Reug olympien mhm. la. yàlla dogal. Mhm. mais jamono du neex bali li di bëree arrangé Reug Reug. bu Sa manina. loolu li koy expliquer lu simple la. mooy Reug Reug a trop duré sur la lutte simple. daf ci yàgg. boo xoolee. public bi ko gën bi ko xam ci lutte simple ñoo ëppoon foofu que ñi ko xam ci lutte avec frappe. Mhm. Reug Reug boo xoolee gaa ñi ko commencé bàyyi ci lutte avec frappe keroog muy bëre ak Jordan Ibomar. Mhm. ci la ko amateuru lutte yu bari commencé bàyyi xel. dëgg la wala amateur lutte lutte avec frappe. Mhm. léegi mbër mu yàggee noonu ci mapat ci prise lay bëri. mooy day téye ba mu dëgër déglu adversaire am soog a def li muy def mhm. ci combat yi mu bëri yëpp sur dix combats neuf combats yëpp loolu la bëri mhm. te loolu muy dëgg mhm. mooy day dafay dafay maîtriser cible am soog a am opportunité def li mu bëgg a def moom ci rapidité yëpp dañ ko mettre en difficulté. Mm-hmm. man dem naa gala de lutte simple Luc Nicolaï Kaolack. Mm-hmm. bu neuf millions. Mm-hmm. keroog bi mu daanu dafa tiit. parce que l'action a été tellement rapide te amul flexibilité boobu ci bëreem. loolu mooy dëgg. ci ban combat am moom ak kan la woon. boobu gala Luc Nicolaï boobu franc la mook franc ñu daje euh, boobu moom moo moom moo génnee franc par point quoi. Euh, waaw après bi mu ñëwee dafa aalu. Hmm. dem dugal recours ne daanuwul. waaw ah, loolu peut-être moom ak kii woon am na benn combat bi nga xamante ne moom ak luy coor. liy coor de la dugal recours mooy bu amoon démb jóg. déedéet déedéet lii Kaolack la. Luc Nicolaï moo fa tegoon neuf millions. Ah, Kaolack. Kaolack. waaw boobu de fàtte na tey boo nee rek rek bébé jéen bébé jéen yorul woon doole jubu daanee rek rek. Mhm. yorul woon mhm. Mhm. mais ci lan la ko daanee woon xam nga yooyu dafay wàññil ay téléphone dafay ay ay sew sew yoo xam ne nañ koy jàngat. parce que dafay mën a expliquer li ñu bëgg a wax ci mbër mi. naa loolu wax barki démb ne leen bu Sa Thiès dégloo Reug Reug bu ko nee na puus ku dëkkoon géeja waaye jugal nga ñibbi dara du tee dara du ñu upp xajam ko hmm? wallahi su ko Reug Reug saa déglu ko da koy upp que doole jooju la yor Uh-huh. benn bi ci des. Mm-hmm. mooy bu Sa Thiès fëtalee ci façon bi muy bëree moom Sa mm-hmm. mën na ko mettre en difficulté. Mm-hmm. parce que amul réaction rapide comme mbër. ñaari mbër yi dama dajeeg général Malick arène nationale. mu war a mu war a dajeeg Mbapat ak Serigne Mm-hmm. li ma lay wax nii dama koy wax sur le contrôle de risques bi muy àndal. Mm-hmm. ma ne ko dama lay conseil suba boo dajeeg Serigne Ndiaye mu naa ah, ma ne ko mën nga ko daan. Mm-hmm. mu ne ma ci naka. ma ne ko boo ko gënee gaaw. bañ ko déglu dem ko daan. mu ne ma grand wax ma ne ko billahi wallahi tallahi. le surlendemain dañu daje mu ne ma grand la nga waxoon laa def te dama ko daan. dëgg la la. donc loolu mooy dëgg deuxièmement hmm. mooy j'aime pas le poids de regret hmm. parce que mbëru mbëru mbapat mbëru mbapat la regret amul yenn certain violence yi sur son hmm. adversaire ci wàllu xeex donc li muy def ci dooleem la koy defee ak ci yaramam te est bëreeg mbër mu mel ni Sa Thiès dix arrangé na Reug parce que Sa dafa xaw a mën poids lourd. mais rek eh, buur. Mhm. foofu laay ñooy dugg ak yow. Mhm. que man bu dee dëgg rek. Mhm. ma jël ji Reug Reug ko gis mu diis kan kan. ma jël ji Sa gis mu oyof tool. waa léegi jëlal ma sa léegi bës jëlal Sa Thiès nees. mais mais dafa am lu soppeeku ci diggante bi. Mm-hmm. rëg-rëg dafa simmeeku. Mm-hmm. poto bu bees tàq bu rëg-rëg génn na. Mm-hmm. rëg-rëg simmeeku di contact. mais rëg-rëg diis bi wàññi na ko fu mu toll nii rëg-rëg wàññi na poids bi. jërëjëf bës kon liñ doon wax kon. te man pour ma juger ni que boo boobu photo bu récente la. am na yére yoo xamante ne maa ko defaral waa kër rëg-rëg. am mm-hmm. yére yoo xamante ne maa ko defaral waa kër Sa Thiès mm-hmm. te ci ginnaaw photo boobu noonu seen naa mm-hmm. ci benn yére boobu te yére boobu moo ko defaree yàggul kon ma xam ni kon rëg photo bi photo bu bees la kon rëg dagg na maas bi jërëjëf bës kon liñ doon wax kon ñun semaine yële passé kon duggul dans l'oreille d'un sourd dëgg la la mu indi woon te signature de contrat bi. wàññi na ko. c' était pas le poids normal bi rëg-rëg war a bëree ak Sa mhm, mhm, mhm. donc su dee wàññi na ko ba xaw a tolloog Salif tuuti. mën na ko indil ay difficultés. Hmm. parce que rëg-rëg. du hmm. mbër muy raté cible am ci bu jàppee. Hmm. Mhm. Mhm. li li muy waxee nii ak arme bii mu yor ci combat bii. Mhm. ñu jàpp ni day wax waxi lébu. li muy wax daf koy def. wala boog dana am dafay am intention à cent pour cent pour def ko mais. mais bu bu Reug Reug ak saa bu samp jaak xeex. Reug Reug loxo bi diis na mais gisaguma ko mu mu xeex xeex bu jub. te jàppul gisaguma ko mu dóor te jàppul damay wax li ma gis du bëgg a xeex dans le vide même ci ba dafay éviter bagaaru adversaire mais mën na am mille chance parce que Sa Thiès tamit aussi nekkul un très bon boxeur mais loxo Reug Reug loxo Sa Thiès bu a diis. loxo Reug moo gën a diis. ay d'accord ma buur de. non man loxo Reug Reug man laa gis ni que moo gën a diis. fils de Double Less. Sa Thiès fils de Double Less. xam nga bës il faut ñu xam ni que Sa Thiès ëppul waaw ëpp ko moom te doo mën que tamit aussi ëpp na ko doole. waaw mais mais mais mais mais doole doole. Mm. ak euh, ëpp maas. ak mm. loxo bu diis lu ute la. loxo bu diis ci avant bras la ak ca traçé xam nga la mooy point fort Sa Thiès ci combat bi. Mhm. mooy Sa Thiès moo gën a réactif. waaw ah, dëgg la dëgg la. est-ce que cette réaction rapide là de Sa Thiès. mënul mhm. juumroo Reug Reug. dégg naa la. tey bu réaction rapide du Sa Thiès doon induire Reug Reug ci erreur. day dëju mbaa mu def quatre appuis parce que gëmuma ni mën na mbot rëg mbot mu extraordinaire gëw ma ni que mën na ko xar jëppee dóor ci suuf gëw ni mën na ko dóor mu daanu. lim ma li ma ko gëm daw ci kawam rëg rëg ko mu rocce. ba ko fa. bu arbitre sifflé pression bi fu muy féetewoo kan muy ëpp pression. Sa Thiès ëpp pression li tax. mooy d'abord am na luy murmure biir géejawaay. buur loola la. la sortie de Diaw fii la la fekk. dégg naa la. un comme Diaw. biir géejawaay. waaw su ne comme kontaanuma ci Sa Thiès. Mhm. ndax faale wuñ. Mhm. est-ce que biir géejawaay. Mhm. ils soutiennent à cent pour cent que Sa Thiès am victoire. ah déet. mais bu tey damay confrontation yow tey amatuma envie nekk présentateur il faut ñu confrontation. Mhm. man dama gëm ni la pression et du côté de Reug Reug. ci naka bës ñu dem. buur. Euh, mhm. Reug Reug musul daanu. Mhm. Reug Reug ñëpp dañuy wax ni Reug Reug est le roi des arènes mooy dafa war a nekk di roi des arènes. c'est un futur roi des arènes. tu dois raison loolu mooy boo gisee yow sànq yaa ngi naan rëg-rëg ci taxawaayu xeex ba xeex ba barewul ci taxawaay mm. ndax rëg-rëg bëggul juum mm-hmm. Yékini moo dàqoon xeex gaa yi mm-hmm. ni moo dàqoon dóor gaa yi moo leen dàqoon mm-hmm. moytu moo leen gënoon ñeme encaissé mais boo xoolee ni daawul woon xeex xam nga lu tax parce que bëggul juum da lay bëgg jàpp pour daan la rëg-rëg donc du bëgg xeex day bëgg a jàpp pour daan la parce que wóolu na dooleem wóolu na bërim mais tey boo xoolee Sa Thiès dans sa façon de faire dans dans la vie Sa day bëri naturellement. Mhm. Sa day bëri sans pression. Mhm. tey bu arbitre sifflé Sa Thiès sans pression boobu bu ko yoree ci kaw Reug Reug nar a ci kaw Reug Reug Reug Reug pression bi foofu lay féetee. est-ce que xam nga bës bu bëri Reug Reug bu naa ubbeeku fii ak Reug Reug jàppul Sa Thiès est-ce que ci mhm. ñaari yaram yuy laalante nii rek te kenn téyewul ngemb est-ce que pression bi du bëri ci côté Reug Reug xam nga bës Sa dafa def benn erreur ci combat am ak Moussa Ndoye mhm. dañ ko bëriloo lu moom moom lu nekkul ci moom mooy lan mooy ñëwal nga téye sa bopp déglu sa adversaire hmm. yow loolu nga gis waaw Sa Thiès n'est pas un lutteur comme ça mais pourtant Sa Thiès dafa ci defet contre Boy ñëw contre Moussa Ndoye may ko trente secondes une minute léegi moom. waaw xam nga mais dàq ci kaw Moussa Ndoye mais loolu la def Jordan. xam nga boo xoolee man la Sa Thiès bëre sax ci combat boobu neexuma. contre Moussa Ndoye. déedéet neexuma. Hmm. Sa dafay un lutteur boo xam il ne sait pas reculer. Hmm. te s'il veut continuer sa carrière. Hmm. des fois il faut muy. day boole bëre ñaari mbër mm-hmm. day boole bëre Balla Gaye ak bëre Lac 2 mm-hmm. bu gisul lu mu xam day xaar mm-hmm. mais li nga xamante la pression est dans euh, dans la euh, dans le côté de Sa Thiès Sa Thiès dafa am lu mu mënta wanaa suba tey muy la défaite de Boy euh, de Balla Gaye de face Boy Mm. te loolu bokkul ci combat bi di ñëw. Mm. Mm. dafa bëgg teggi tuuma. bës. ñu daan Balla Gaye 2 barki Dembo Ndiaye. taf taf même pas deux mois ñu daan Sa Thiès. mais loolu catastrophe naturelle la biir géej waay. waaw day yéeme de. dafa yéeme. day yéeme de mais kon da nga bëgg wax loolu defetu Balla bi dina dina am lu mu changé ci Sa Thiès lu non daf koy indaale wala dina am lu mu ci indaale parce que dafa am benn cofeel bu bu sori buy dox ci diggante ak Balla Gaye bi mm-hmm. mm-hmm. te daf koy indaale parce que Reug Reug keroog mm-hmm. jour combat Balla Gaye 2 dafa am benn doxalin bu manifeste bu mu indi keroog ci làmb ji ñun ñoo dugg la fu na ca biir géew ba mm. def la muy def en mm. pleine préparation bataille mm-hmm. de Boy Niang mm-hmm. bi mu paree ku mu ñaanal mu am ndam mm-hmm. Balla Gaye booy kii la ñaanal mu am ndam Boy Niang Boy Niang dafa ne maa yàlla na ko yàlla may ndam yooyu dafay des ci bopp mbër bu mel ni Sa Thiès te la amoon il y a trois ans quatre ans ci ginnaaw. Hmm. entourage bi ñu doon gañe ñoom doomi Balla Gaye yooyu amatuñ ko. Hmm. Père Balla Gaye deux Père Balla Gaye un n'est plus là. Seen Balla Gaye fi. Ndiaga Sarr Daouda Fall. waaw et cetera. ñoom waa ñoom étudiant ñoom commissaire ña Balla Gaye daan àndal moom moom la Sa Thiès daan ñaari maga fa des mbay sàmba fa des ak ak ak jaw jërëjëf léegi da ngay xool vide boobu li mu créé ci kaw maanaam ci ci carrière Balla Gaye waaw donc y problème mais buur man fi ma bëgg a yow sànq da nga ma ne loxo rëg-rëg moo gën a diis loxo Sa Thiès loolaa gëm de rëg-rëg bu jàppee bu la dóoree nga toog de rëg-rëg ak Sa Thiès ko doole Hmm? en tout cas Reug Reug il est résistant de am na résistance. Reug Reug ak Sa ku résistance ku dàq bëri ñoom ñaar ku dàq bëri. Hmm, bu dee ci rapidité réaction dugal ay clé Sa Thiès moo dàq bëri. waaye bu dee ci déglu adversaire Reug Reug moo dàq bëri parce que Reug Reug li tax moom fooru bëri boobu mooy daan na bëri ci genn ngoon quarante combats. Mhm, mhm. Mm. amaana mën na daan quarante adversaires yoo xamante ni kele bu ci nekk bi mu la koy lim lay lim lay daan bokkul ak li muy daan sa morom mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ci gaawaayam ci la bëre bi gën a feeñ Sa Thiès est un génie Reug technicien Sa Thiès li muy daan bër ci bëre du ko indaale luy judd ci biir bëre bi léegi la wasin bees lay doon am na solo am na solo limu mu te bëgg la ko def xanaa yàlla mi ko sàkk mais dala koy def <laughs> euh, buur combat bi kuy sa favori bon mën nañu wax ni que plus ou moins Reug Reug ci benn wet il est le favori devant Sa Thiès waaye man buur loolu laa gëm te bu bés baa dinañu xam ni que loolu laa gëm mais sànq ban bu déggee sa communication wax sa départ man dama foog ni Sa Thiès mooy favori. déedéet. saa li ma wax ci Sa Thiès lu leer la. dama ni Sa Thiès est plus réactif. Mm-hmm. il est plus ci wàllu lutte simple dafay expliquer des fois lenteur bi muy am ci làmbam. Mm-hmm. mooy day téye ba noppi. Mm-hmm. déglu adversaire am def li mu bëgg def. kële bu ne bërit lu mu fa fekk am na lu mu war a teg. dëgg ñaar bokkuñu ne ñu bëree. kii li kii di bëre arrangé wu ko kii li kii di bëre arrangé wu ko. Mm-hmm, mm-hmm. Sa Thiès dégluwaat dégluwante ak adversaire bu mel ni Reug wu ko ko defee bës dafay daanu. Hmm? Hmm? bés bu teg rek rek ne teg rek def teg billahi wallahi da koy upaa bu <laughs> waaye bés bu bëri ba jaxasoo bés bu bëri ba jaxasoo ba bëri bi jaxasoo c'est à la faveur de sa am na solo nee li nee naa def ci bëre balaa nee naa li muy def ci bëre ci biir bëre bi lay juddoo dëgg la loolu mooy li am dëgg am na solo bu mais ci bés bu la Sa Thiès ci bis diis ci ay waggam bis diis ndax ki muy bëreel n'est pas n'importe qui uh-huh. c'est Reug Reug Bodian mm-hmm. ma waxaat ko mu mm-hmm. Sa Thiès Reug mm-hmm. Reug Bodian lay dajeel lay bëreel dëgg la ki muy dajeel dafa gëm ni que dëgg la d'ici deux ans ou trois ans il sera le le nouveau roi des arènes Mhm. carrière bu propre la am ba yëg si fii boo xoolee carrière moo gën a propre carrière Sa Thiès mhm. Sa Thiès moo gën a riche carrière de par ses adversaires mhm. mais Reug Reug carrière moo gën a propre parce que dafay dox eh. pas par pas pas par il marche avec des pas sûrs eh. et limpides parce que xam na fi mu jëm eh. waaye du mbër mu ñemee gàcce nag dëgg la dégg naa te mbër mu ñemewul gàcce ñaare du jël ay risque <laughs> am na solo am na solo dégg naa la buur dégg naa la kenn du yow macha allah <laughs> kenn du yow waxal Jackson yow muy na ataaya ji ma jaaxaan continuer live tuuti ba ci kanam nga ne Jackson mu lan <laughs> mais gaaw muy na ataaya ma mos waay asalaamaaleykum. mais grand Abdou Aziz waaleykum salaam maa ngi lay ziar. bu baax a baax a baax a baax le philosophe de l'arène. non maa ngi sa ginnaaw demb ngi invité ginnaaw démb démb yaa ma invité. ñu waroon dugg ci thème wu Reug Reug Sa Thiès. émission bi mais mais tey ni dugal naa la ci thème bi tey maa lay posé question. muy njëkk yow grand. <laughs> li ma la bëgg laaj li ma la njëkk laaj Reug Reug Sa Thiès kan mooy sa favori. après ñu soog a toj nag. waaw loolu moom dama si tontu mais balaa ma si tontu dama fekk sama sama kilifa. waaw si lim bi mu nekk ki nga xam ne daal man aw ma fayam damay bàyyi rek yàlla suñu borom fay ko. amiin ndax man saa yu mu ko soxlaa. waaw mbagam jëmm la kilifa la si biir réew mi. macha allah ku ñuy présenté day bàyyi itam yëpp. am na kay macha allah ñaanal gudd fan rek. lépp li nga xam ne borom gën a yokk xam-xam bi. macha allah rafet na lool à chaque fois ñëpp koy dégg wax moo làmb ma koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu également sama waa ji nga xam ne moom laa jàkkaarloo nii à côté macha allah am na solo waaw mais ki ko mais waaw rek rek Sa Thiès laa bëgg nga ñëkk ma wax laaj nga ma laaj ma laaj nga ma laaj bu am solo hmm. xam nga làmb mm. d'habitude dafa baaxoo mm. en tant que ñun ñu nekk ñu nekk mm. ñaari ndaw bu ñu jàkkaarloo il faudra que mu am favori mais favori nag cela bu veut pas dire que kooku mooy daan dañuy mm-hmm. estimer rek parce que nag bu ñu xoolee ñaari parcours ñaari lutteurs yi Reug n'a jamais eu de défaite n'a jamais considéré une défaite mm-hmm. par rapport ak Sa Thiès mm-hmm. donc tey bu ñu xoolee parcours ñaari lutteurs mun mm. leen wax ne rëg-rëg mooy favori pourquoi mm-hmm. Mm-hmm. je dirais que rëg-rëg mooy favori vu son parcours mm-hmm. en plus dafa baaxoo athlète un sportif booy def benn discipline di defaat beneen discipline bi nga xam ne bokkul ak sa xeet muy làmb suñu sport national suñu tradition mu ngi def li nga xam ne mooy MMA c'est-à-dire il a gagné plus par rapport ak Sa Thiès Parce que Sa Thiès, il a un adversaire très sérieux. Quoi qu'on puisse dire. Mhm. Un adversaire très coriace. Mhm. Pourquoi ndax Sa Thiès ñu mu naan tàmb di bëreel bokkul ak ak Reug mhm. Reug. Reug dafa nekk lutteur boo xam ne dafa mbapat. jaar équipe nationale du Sénégal wane ay preuve am. Sa Thiès la si làmb kenn dootu ko werante. le fële Double un champion. xaalisu làmb moom lañ ko ngéntee. dëgg la la kenn dootu ko naatable. mais nag kii nga xam ne moom mooy Reug Reug Sa Thiès mm. damay daal di ñëw si moom pourquoi. Mm. Sa Thiès dañuy gis ne bu amee benn adversaire bu xaw a tolloog moom doole. Mm-hmm. et sur le plan physique. Mm. je précise le plan physique. day xaw a am tolof tolof. Mm-hmm. mbër bi nga xam ne dafa tolloog moom doole. mbër boobu tamit bu dee am na technique am doole comme moom. Sa nga gis ne fois mbër yi mu daan bëreel. ñi nga xam ne dañ koy dañ koy dañ koy yegg yow fu sori. Sa Thiès boo gisee musu daan génn parce que ñooñu daf leen ëpp doole. Mm. boo fàttalikoo ñun. wooy bëre. oh. Mm-hmm. waaw. waaw. ëpp doole bu la yeggee fu sori du la mën a daan. Mm. c'est parce que doole. Mm. moo tax ma ne Sa Thiès mm. sa sa manière de lutter mm. il doit être très serein s'il ne s'il ne pas serein dans ce combat surprise bu mag mun na ko si xaar ndax ku muy bëreel ndaanaan la Sa Thiès moom arbitre bu sifflé day ñëw rek moom moom lu mu am jël gëm-gëmam mooy loolu am na ci droit parce que nit dañuy tàmm di wax sa mënin doo ko bàyyi mais sa mënin ak ban adversaire c'est ça la question ak ban adversaire bi ngay jàkkaarloo des fois hmm. làmb day baaxoo nga indi stratégie boo bëggee hmm. génn si combat. Hmm. boo Niang noonu day bëree chaque lutteur dafa am plan xant ak yow ba génn si Sa Thiès tey bu bëggee am ndam bëgg def résultat sur ce combat dafa war a oh. Aziz mu ngay càng Sathiès bu abbi nekk mu dal sama kaw duñ bëri deux minutes na taxaw rek fu ma koy jàpp lamb ji jeex. Eh, lamb bi bu ci amee ndam jàpp na yow ma xëy am na ko fay mel su ma ko dirigé wu du ma dirigé.